bienvenue à Electro Center. Electro Center, le spécialiste de l'électroménager. Frigo combiné, 3 wala 4 tiroirs, frigo bar, congélateur, horizontal wala vertical, frigo side by side, ay téléviseur écran plat LED, ay téléviseur smart, ay téléviseur Android, téléviseur 4K, 8K, QLED, curve à 24 ba 100 pouces. nag dama ni ay chauffe-eau, ay cuisinière wala ay micro-ondes, micro four yi nag, machine à laver nag toute marque ay fer à repasser lépp loo xam ne da di de son ay mixeur ak ay accessoires batteuse ay bouilloire électrique ay machine à café Nespresso ak yeneen waaye split yi nag marque yépp am nañ ko ordinateur portable yi nag photocopieur imprimante yi multifonction wala couleur wala noir et blanc cartouche imprimante yi nag téléphone Samsung iPhone Tecno Itel Infini Huawei de tablettes pour enfants wala sax ay ventilo yoo xam ne day taxaw wala ventilo mural wala plafonnier ci bëgg rek électro centre xam naa ne yéen ñëpp yéen a ngi naan fu mu ne Cambérène 2 en face fast food baaboo yi jëlal numéro téléphone bi 77 308 30 06 wala 77 345 39 38 suñu site internet www.electrocentre.com Facebook slash Instagram électrocentre la livraison est gratuite fépp ci biir Ndakaaru ba noppi nag dañ la garantie 12 mois am service après vente bu toog ñoo xam ne xarañ te nangoo liggéey li si gën a neex dañu nekk en promotion ci biir weeru koor gi yëpp électro santé mi ku yebu bàyyi xel ki moom maa nga jëm Cambérène